ana wa Sénégal kaay ma won leen fi jere dem kaay ma won leen fi jere dug ma won fi len di sagal taw fex boutique bi nga prêt à porter la nek fi nga xam ne moom West Foire à côté de la Brioche Dorée ci weti Brioche Dorée bi mané vendeur prêt à porter waaw sen semis yu high class xoolal ma façon chemise yi ay Lacoste waaw fi rek nga koy amé mané ne xool yu xeetu dàll bu ngeen bëgg am nañu ko ma ne bi pantalon nag xoolal ma bi pantalon ay t-shirt ma ne Tawfekh Sopp daal habillement yu am classe yu classique numéro de téléphone 549 95 07 wala 77 545 21 21 70 778 86 15 Tawfekh Sopp man di jëm ak ñii laa gëm man daw leen gaaw seeti leen indil nañ leen lu bees tàq